couple Mabo doon na couple ba nga xamante ne nii duñ ko présenté àdduna wërngal këpp rawatina si suñu réew mi lee di Sénégal di rek couple Guissé di Mia ak borom këram Abdoul ñu gën koo xam ci turam Nofees ñoom ñooñee nag ci fàttali bu yàggul dara lañ doon màggal seen juróom-benneelu atub mariage wa ila ba ñuy sëy léegi juróom at yamu def la doon rek dal di eh, anniversaire naka noonee ñoom ñaax ñooñee nga xamante ne nii bokk nañu ci couple yu gën a siiw si àdduna gi si lu ñeel musique sénégalaise gi doon nañu nga xamante ne ñu bëri euh, naw nañu leen euh, ci rek na nuñ leen di gisee ak complicité ak mbëggeel gi nga xamante ne nii ñu ngi koy faral di wane euh, ci seen vidéo ya nga xamante ne dañ koy faral def taf ñëpp ñaw naw leen di leen di roy ci seen i ba niroole ay yére yi ni mel ñoom nag couple Mabo nga xamante ne nii euh, seen titre bile di euh, reeni xol ñu ngi ko génne atub 2015 ñaari at ga si gannaaw ñu dal di rek génne yaa ko war ne woon atub 2017 depuis boobu ba tey nag public gu bëri ñoom ñoo dal di rek sopp boobule wëy tax dal Mia ak Nofees am rek euh, mbooloo mu bëri lool si lu ñeel wàllum fans ak ñi nga xamante ne ni dañ leen di roy waaye nag. ñoom ñoo ñi ndekete nag luñ leen seen yëpp di leen di naw si rek nañ leen di gisee wuute nag la ñuy dund ci rekk dëggantaan ca seen biir kër ca seen néegu séya ndaxte jot nañu xibaar ne daal Mia ak rek uh, Nofees daal dina ñuy tàggoo Mia ñaan na baat uh, buub na ay bagaasam ñibbi seen kër uh, ga nekk ca diwaanu Zac Mbao la ko wundu moo di daal borom kër ga di Nofees da ko doon dóor guddeek bëccëg violence gu jéggi dayo la doon dund ca néegu sëyam googee tax sax moom Mia buub na ay bagaasam lu mot ñeenti yoon di fay di ñibbi waaye mbokk yi dañuy waxtaan arrangé dal di indiwaat loolee yëpp lu ko doon waral du lenn dul dóor yu métti yi nga xamante ne ni dul da ko ko doon dóor naka noone bu ci mujj kile di Mia dafa jël nee nañ saagam di dem rek marché ngir jëndi ay tissu jëkk ji laaj ko fu mu jëm mu xamal ko ne marché la jëm ngir jëndi ay tissu naka noonee la ko ca Abdul di Nofees dóore dóor yu métti lool nga xamante ne ni dugguleet mu ko koy def waaye nag bile yoon da koo dóor sa ba xotti saag ba mu yoroon Mia mer ba futtu tax daal mu dal di buub ay yére yam fa am yëpp ak yi ay bagage am dal di woo seen waa kër ñu indi taxi daal di koy jël mu dal di ñibbi ca seen kër gu nekk ca diwaanu Zac Mbao waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ab source bu leen jege loola ñoom ñaar ñoo ñeeñ mujj nañoo tàggoo di nag eh, xibaar ba nga xamante ne ni eh, bett na ñu bëri lool ci askan wi rawatina ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di seeni i soppe ndaxte nañu leen di gisee ci seen i ay vidéo eh, complicité la ñu gis ci seen i ay dundin ak rek na nga xamante ne ni ñu ngi ko doon dundee tax daal mu neex lool ba ñëpp di ko doon roy ñëpp di xool ci ñoom ndekete yoo la ñuy wane ak la ñuy dund rek doon na lu wuutal lool ndaxte Mia mi ngi doon daj lu méttee métti ca néegu sëyam googee nga xamante ni eh, jëkkër ja eh, da doon dóor guddi ak bëccëg eh, bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot tax daal tey ji ñu mujjee rek ci tàggoo